mbokk yi ñu ngi leen di nuyu Gram, maa ngi nuyu kan. Birame maa ngi lay fay. voilà yow yaay président fédération des producteurs maraîchers de la zone des Niayes. Uh-huh. ñu ngi ci jamono joo xamante ne bii tey dafa jaaxal ñu bari. ñu demoon nañu ñu ànd ak mbas mi di coronavirus. tey yan gram, la ñu mën gram, nemmeeku ci mbayum zone des Niayes ci jamono ji nga xamante ne moom la ñu nekk. jërëjëf Birame Birame la maa ngi lay gërëm di la gërëm ci turu. Federação das Convidas Mais, Federação de Ligar Unida Grafim Social de Convidas, eu realmente o compus Federação. Uniti 2500 membres officiellement ainsi. li nga wax lu rëy la ci ñëw lu metti ndax feebar bi bi mu duggee ci réew mi ci période bi ñun bi ñu ñëwee ci presque mois de février dafa fekk ñu nekk ci ñu nekk ci mbirum tool yi ñu nekk ci mbirum tool yi xam nga horticulture mbéy la mu nga xam ne périssable mbéy la mu nga xam ne bu ñoree da nga war a jaay wala nga conserver te ginnaaw yàlla dogal na jumtukaay yi ñuy conserver bariwul ah il faut que mu am jafe-jafe ci maraîcher bi ba tax na surtout bi ñu defee couvre-feu bi baana baana yi ñoo baana commerçant yi ñoo war a dem ci àll bi jënd mbay ñi ci béykat ñu nee nag baana baana yi ñu dem ci àll bi oto yi du ñu daw oto yi yëpp bagage dinañu dem mais baana baana bala muy jënd bagage da ngay gis da ngay gis bagage bi am ndax qualité la wala du qualité mu discuter ci prix wóorul la camion bi bu demee du mën a jëndal bagage la mu ko war a jënd moo tax marché yi am nañ ci ay jafe-jafe. jafe-jafe yooyu sax mën nañu yëngal ba tuuti à part li nga xamante ne bii wax nga ko ci yàlla kon même ñu ngi koy dundee ñoom jafe-jafe yi ci am na ci ay jafe-jafe mais ñun ci ci fédération bi xam nga mbay dangay diversifier say mbay dañu fédération bi am benn programme bu nga xam ne dañ ko signé ak ay partenaires ay ànd ci ak banque agricole ñu jël comité ñu comité jox ko béykat financé leen semence intrant yi ci war a jënd ak grâce bu ñu pare ñu gënnaat ñett comité rek loolu gën nañu ko commercialisé yi di ko ëpp 1200 tonnes nga xam ne where journalism is capitalized deliver education sound of life. Mais vers les bennes culturelles, Tamar, Ari, Djamati, Oesi, Bomb, Supol, loolu yëpp ay xeetu weer am dañ ko béy mais loolu mën nga ko béy amuñ ko ko béy loolu mën nga leen tudd la ba pare ñu tëj frontière loolu yaa ngi ci biir réew rek da ngay gis ko am ne toolam rek dem day yàgg boobu boo ko joxee te dugal ci ay parce que amul fu mu koy def ba tax na loolu am na effet bu métti ci béykat. dana fi mu gën a sant yàlla ndax itam wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu gouvernement bi ñu ngi góorgóorlu di def li mu mën. daanaka suñu gàtt ci commune bi la waxee ñu gàtt lu bari ci xaalis. waaw am nañu ci perte ndax wax dëgg yàlla am na producteurs yoo xam béy nañu mën a jaay mais ñi nga xam ne daw nañu pomme de terre jaay nañu seen pomme ñi nga xamante ne gaaw nañu euh, nu mu tudd ci yeneen réew yi ñuy des ak carotte yeeg yooyu ñun man ñoo jaay problème la ci ñoom ba xam ne dinañu yàq lu bari. est-ce que dinañ def xayma ci li nga xamante ni perte ngeen ko bu fekkee xayma ngeen ko ñaata la toll. waaw loolu nag euh, parce que ñun dañu am équipe technique bi nga xam ne ñoom ñooy encadré producteur programme bu ñu am suñu technicien ñoom jël seen i moto dem ci producteur bi dem ba toog di ko superviser. ñooñu ñu ci gën a mën a prononcé wu ci wax xayma te du yomb ndax boo bëggee di def soixante villages ku nekk nga bëgg a xayma euh, la mu bañ lu doon lu yomb mais loolu en tout cas jafe-jafe am na ci. leneen tamit euh, mën nañu ko waxatee ci euh, zone des Niayes ak jamono bi nekk nawet bi di léegi ñëw ci des daanaka bëriwul am na sax ay gox yoo xamante ne jot nañu am ay taw yu njëkk tey ñu ne nawet te boo xam ne rek lay dem ci mbay mi. donc est ce que lépp loo xamante ni na ci mbay mi ngir ngeen mën a doxal seen activité bi mu waree ndax leen mat na ci jamono ji nekk itam. jërëjëf xam nga euh, zone des Niayes daf di zone ba nga xam ne mën naa wax ne mooy sàkkum njëriñu Sénégal ndax liñ fiy bay ci fruits et légumes daanaka Sénégal mënu ko mënu ko mënu ko jëfandikoo yi ci période yi ñu koy béy. moo tax am na ñoo xam ne dinañu béy noor di ci béy nawet mais ñu loo gis rek àddina loo fi gis dañ koy organiser moo waral suñu fédération bi dañu organiser wu pour que ci nawet bi ñuy dugg ñu war a béy xaal war a béy gerte def nañu suñuy recensement dafi mu nekk ñu ngi ci quarante quarante deux tonnes yu nga xam ne tey ji bu ñëwoon seen borom jël dem ji gerte te loolu suñu produit suñu techniciens yi ñoo leen di accompagner ci nawet parce que àdduna loo fi bay rek dafa loo fi dafa laaj organisation moo tax bi ñu génnee ci campagne yu pomme de terre bi di préparer nag campagne gerte parce que yëgal nañ ministre de l' agriculture ba ñu ngi toog daal di séntu ci fànn yi borom tool yi ruuj nañ ba pare jiw yi rek la xaar. mais ji bi ngeen di xaar dana ji dara teel a ñëw dana yéex na wala. waaw xam nga en général euh, région zone de Niayes ñooy mujjee jot ndox ci ci Sénégal hmm. ñaare nawet fii ñooy mujjee am moo tax yeneen région yu gën a sori Tamba Kédougou yooyu ak Bakel ñooñu ñooy jëkk a taw ba Kaolack tawul Dakar door a jot ak zone de Niayes ak Thiès donc ñun ba léegi ñu amee jiw amul benn problème. léegi ci beneen sujet boo xamante ne bii dañ koy faral di wax ne zone des Niayes bi muy waaj a naxsaay ndax li ñuy wax naan si day bees ñoo ñëw nangu tool yi loolu am na njëkk. waaw loolu am na euh, euh, am nit ñi doomu aadama soxlaa la ko mbéy mi soxlaa. te yàlla daf ñu defal boo béyee dans la zone de am euh, vingt quatre heures na dem ci consommateur boo béyee si zone am quarante huit heures mën dem Europe parce que jigéen nañ aéroport jigéen nañ port ba tax na lu ñu béy yóbbu ko mu génne mbaa ñu jaay ko day dafa dëppoo ak plante yi li mu soxla ci climat parce que euh, climat bi mënoon na nekk Kédougou wala Bakel bu fa nekkoon mais boo béyee foofu war a ko indi Dakar wala nga wàññi yóbbu ko aéroport wala port day poser problème donc bu ñu yàlla defalee ci zone de Niayes loolu yëpp am fi nit ñi bëgg ko def dëkkuwaay loolu itam mën na indi jafe-jafe te man yaakaar toujours di importer li ñuy dundee.

ak ñi nga xamante ne nekk ci mairie bu Sangalkam ñu ne dañuy jël espace bi ngeen dara tey ba ko def terrain de football stade ba fi toll. waaw jërëjëf loolu euh, li ma ciy tontu rek mooy di sant yàlla di gërëm euh, ministre de l' agriculture di gërëm président de la république ndax àdduna dafa am homme d' état am. mais homme de temps en homme de mooy ki nga xam ne dafa ñëw fi mu nekk ci état bi loolu rek lay xool li mu tiim na muy def ba jariñu ci mais homme de temps boo ñëwee da ngay bàyyi sa xel si état ñi la fi jiitoo li ñu defoon nga bàyyi ci xel li nga tolloo fi nga toll li nga war a def ëllëg ñi la fi war a remplacer li ñu war a loolu mooy homme de bi loolu amee nag yàlla jotal nañu ak ministre la l' agriculture et de l' équipement rural mu yebal fi ay ndawam ñu gis yàq yi nga ne moom la commune bi def dégâts yi ni mu ak ni ñu bëgg a néewale doole ministre bi ne loolu ñu mën a am def ci li ci war yépp yëgal ko itam ak président de la république mais mbir moomu yaakaar naa ne féete na boor linkawara jox ministre bi nee na nañ ko jox loolu jox nañ ko ko war ne nañ ko jeex na loolu boobu problème jox nañ ko est ce que dañ laa dégg si lu mel ni bërëb bu mel ni yi nga xamante ne bii askanu Dakar ñu bëri li ñuy jullee li ñuy jullee ci léegi ñu war fee ñu bëgg fee jëlee pour def loo xamante ne bii boobu voilà dañuy si bool ndax dañ laa dégg ci xel ci xol. loolu neexul a dégg ndax fi ñu toog tey lii rek la béykat yi am ci région Dakar. boo demee ñi nekk boo boo demee ba Kédougou zone de Niayes nga dem vallée vallée ci vallée bi ñun dem Dakar dañuy am jafe-jafe ndax distance bi dafa sori mais ñun fédération bi ñu ngi préparé tabax fi këru béykat boo demee ba gis béton bi di gis mool bi di nga gis fer parce que dañu bëgg béykat yi bu ñu dem Dakar. du ñu am fu ñuy ñu am problème fu ñuy fanaan bu ñu fi amee seen këru béy mën nañu ko def escale bu ñu paree dem doxi seen soxla nit te loolu fii rek lañ ko mën a amee donc euh, bu ñu ci ministre bi jàppale ba loolu nga xam ne moom la ci béykat ba que nañ ci def itam chambre froide bu nga xam def vingt mille tonnes parce que bay jaay wala nga denc te boo ñëwee Sangalkam dafa nekk ci bunt Ndakaar consommateur yi dañu wër Sangalkam bu ñu fi tabaxee chambre froide lépp lu béykat yi ñaar bi béy lu mu bari bari dañ ko mën a dugal béy denc ko ci biir moom la ñu xaar ba euh, nawet bi yëpp importation fruits et légumes yi di jóge ci yeneen i réew di Sénégal. te fekk Sénégal mën nañu ko béy man nañ amuñu fi ñu ko denc motax ñu ngi ci waxtaan ak gouvernement bi set nañu jappale ba kam mu doon centre lu fruits ci senegal dañ bëgg képp ku fruits et ci senegal dañ la naa demal Sangalkam loolu daal mooy suñu objectif. merci beaucoup monsieur Mbaye. jërëjëf. voilà donc mbokk yi itam ñu ngi leen di jaajëfal wax wax ñu si ci Bambilor Info dig daje beneen ndaje ak beneen daanaan. ci waxtaan ak lu soxla askan bi jariñu